jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi fas yéene waxtaanee Lamine Camara bi nga xamante ne il a fait un match extraordinaire hier contre euh, Marseille mais waxtaanee Sadio Mané bi nga xamante ne jamono yi euh, Sénégalais yu bari euh, ña ngay dal ci kawam waxtaanee président FIFA ba ak la mu wax président CAF Beto ak la mu wax ci équipe bi nga xamante ne jot nañ leen éliminé notamment ak Sénégal waaye laata ñuy ñëw ci loolu dañ leen di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi te abonné ko ñoo lay ñaan rek. Eh, nga abonné té bës cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal eh, di ngeen bokk ca ñoo koy gis ki nga xamantene moy le jeune espoir sénégalais Lamine Camara mon hier il a été fait un match extraordinaire ci diggante eh, Marseille bu Iliman diaye ak Ismaïla Sarr donc dañoo mujj tembo sax Lamine Camara il a été passeur donc passe exceptionnel donc le jeune espoir euh, du football euh, sénégalais donc euh, démb donc ñu ngi doon wax sax club yi di Juve ak Chelsea ña en tout cas na pendant ce temps dire Mom, après match réagir compte Instagram bi li nga ne Sénégal muy Euh, suñu réew bii di Sénégal dafa war a amaat euh, jàmb donc mënuñoo continuer nii mënuñoo wee leen di euh, di saax saaxe suñu suñu démocratie donc en tout cas situation bi démb presque ñëpp ko naqarlu pendant ce période ci jamono boobu noonu Sadio Mané tamit moom mooy victime fa daanaka ci jafe-jafe yi am fii fa daanaka parce que ñu bari ñu ngi dal ci kawam ah, parce que victime lan lañ ko mën a tuddee parce que ñu bari ñu ngi dal ci kawam pourquoi ndax réagir ci jafe-jafe yi am ci Sénégal et pour man ñi ko wax dama leen mais également Sadio li def tamit dama ko koy nangul peut-être mom mo xam li tax mais en tout cas suma ma mu wax quoi parce que il euh, y a beaucoup de Sénégalais yo xamantene soutenir nañ ko début bi depuis bi carrière commencer euh, commencé ci peuple bi peuple bi ñoom ñoo may gannaaw euh, ñoko may doole ba aujourd'hui mu egsi kon bu réew mi toll fi Sadio Mané war na jéem au moins sax mu bind message comme niko ay Moussa defé dafay du Koulibaly mom Sadio Mané ba mu nekké Liverpool 269 matchs 120 bi 48 passes décisives bi mu jugee Liverpool ba légui 64 24 12 passes d'ici pour vous dire que Sadio Mané il a fait une carrière exceptionnelle donc à Liverpool maintenant donc muy Salzburg muy Southampton Sadio Mané fu man ak club bu ma a dem dafa bopam woné wane le fayda ak jokko yi ci président CAF bi mom ma ngay réagir

donc euh, ci histoire de la CAF donc CAF bam kan ba ci également ma wax que né équipe nga xamantene dañ dañ donc mi ngi leen remercier ku ci Sénégalais et tout néna ou démérité wuñ mais l'idée li day que né équipe yu ndaw yi nga euh, sous estimer néna ñi ngi liggéey bu baax ba équipe day metti lool Afrique ci jamono boobu waa Barça ñoom dañoo impressionné wu ci le jeune pépite l'espoir malien di 17 mooy euh, Ibrahima boobu nga xamante ne dem na fa ba sa Barça di def ay test donc euh, Barça dina jël ay ay ay ay ndogal ci jamono ci fan yi jëm ngir jëm ko signé parce que actuellement ay test lay def foofu noonu ca Barça euh, ki nga xamante ne mooy waa Barça tamit ba tey ñoom dañu leen a condamné ngir ñu fay 23 millions d'euros ci ay. Euh, ay ay xaalis boo xamantene dañ ko doon jox seen agent yi donc dañ doon fraude maanaam genre fraude la quoi donc euh, depuis 2012 ba 2015 donc jafe-jafe yooyu noonu la Barça di dund jamono yi donc Sénégal basketball euh, jigéen ñi donc démb dañ leen a gagné waat encore une fois Belgique Sénégal 97 66 aujourd'hui ñu war a daje États-Unis donc suñ match donc qualification aux Jeux olympiques en tout cas ñu ngi leen di ñaanal. Euh, surtout que États-Unis moom xam nañ doo di yomb moom mais gis nañ Sénégal wane xar kanam gu baax a baax et ñi ngi am yaakaar si ñoom donc li leen leen andi loon ñu wax wéy di like di commenter jaa ngeen jëf